Euh, très bien et sur le cas également de Aliou Sall itam ñu fàttali ko bu baax a baax ko nii moom itam li ñu ko bëgg bokkoon na ci li ñu ko doon décrier par rapport ak li nga xamante ne moom moo jëm ci permis d'exploitation euh, bu Franck Timis bi Petro Tim bi ah, donc loolu bokk na ci li nga xamante ne moom moo tax euh, vraiment ñu ñu ñu décrier woon ko bu baax a baax donc c'est important à rectifier et à préciser aussi très bien Modou am na solo Ndeye Fatou ba tey ci li nga xamante ne moom moo jëm ci nomination yi aussi waa nomination yi moom euh, am na ci sax euh, yenn fonctionnaire euh, yu ma waxal ñu ne bii passé nomination yu mel noonu dafa raar ñu gis gouvernement di ko def quatre-vingt et une nomination nga def ko ci benn conseil loolu rek dafa dafa ëpp dafa jéggi dayo parce que ñii ngay nome li ngi leen di jox alalu askan wi la li ngi leen di dénk moomeelu askan wi la donc boo leen boo leen di nommé nga seetaat ko maanaam c'était trop moo waral gis ngeen ci quoi yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci. parce que tamit nommer pour vouloir nommer wala dégommer parce que am nga ñu naan la ñi fi des gaawal gaawal post yi changel changel boo leen toppee di nga def ba def erreur te looloo ñu indil ci nomination yu bëri yi ñu def ci benn conseil des ministres ñu gis ci quoi yi ay mbiru doomu diw wala koo xamante ne profil wala diplôme bi ñu ko jox. wala grade bi ñu ko jox nekkul grade am nekkul diplôme am te loolu yëpp waxtaanee nañ ko. mais fi ñu def fi ñu def pose première pierre ñu nommé fa DG sous Macky Sall ñu ñëw dindi mbir ma ba tey jii foofu dara nekku fa. waaw mooy li ma la wax rek. mooy mooy bëgg nommé bu bëri bi mooy indi njuumte. Mhm. moo tax quatre vingt et une yooyu wala quatre vingt deux nomination di ko def ci benn conseil mu bëri dafa bëri bëri boobu moo indi njuumte. bu ñuy def ndànk-ndànk xëy na juumte yu mel noonu dinañ ko éviter mooy jël temps xool profil yi ñu niy nommé seen diplôme ndax wér na ak tamit seen i affiliation filiation ndax doomu diw la ci gouvernement wala rakki diw parce que am na loo xam ne bu dee compétence mën nañ ko nangu diw mën na ko jàng na ko am na droit ñu jox ko ko ci réew mi mais nag du loo mën def ko bu fekkee ne sañ ngaa nommé nommé tamit da ngay xool bu baax ñi ngay nome ndax dafa am loo xam ne décence moo koy bañ ay mbokk yu jege yantoo nga jël leen ñii nga def ministre ñii nga def DG loolu du noonu la ñuy yoree réew république lañ yor yoruñu royaume mbir mi du dono lu ñëpp bokk la am na noo xam ne boo ciy dem da ciy dem ak sago dem ci aussi avec lucidité et sérénité gis nga Sénégal ku ko nar a defar euh, sa ginnaaw bii di nga ci bind je m'en ngeen baal ma ci propos yi xam nga lu tax doo fi ne di sedd doo fi ne di cër mais da ngay xool lii intérêt nga def ko te loolu nag courage politique la laaj Sénégal ki ko bëgg changé changer dëgg te loolu waxoon nañ ko ci mois yi passé avant élection yi changement bi bi ñuy xaar ci Sénégal ki koy def du xaritoo kenn ñëpp koy mere parce que boo fi nekkee di soor lu neex nit ñi rek dinga nga répéter les mêmes que les autres te dafa mel ni ñii ñu fal ci logique boobu la ñu taxaw dañoo nekk di sóor dañu nekk di calculer di topp te boo toppee rek di nga def loo xamante ne waroon na ak li nga xam ne moom nga diggee woon loolu moo indi ces nomination pour le cas de Aliou Sall li taxoon mu def tole nag dafa am lu ci amoon muy président mag Sall ci digg yi mu defoon <coughs> avant présidentielle moom moo ni woon du ma mës a jël décret di ci nommer sama frair loolu président moo ko waxoon. Mhm. léegi nag ba nga xamee ne wax na loolu. Mhm. ak lu mën a am su ko defee ñu ne ko lii yaa ko waxoon waxeet. Mhm. loolu indi coowul Aliou Sall parce que ba mu koy diggee kenn forcé wu ko woon moom moo waxoon loolu comme engagement bu mu jëloon la diggee ko peut-être bu ko deful nit ñi commencé di wax mais ak lu mën a am tey li li ñu gis nii moom dafay niroog pire parce que président Macky Sall ci famille yam Aliou Sarr nga dégg ci nommé mais tey jii bu ñu déggul président Diomaye wala premier ministre Ousmane Sonko seen i mbokk mais ay ministre yu ñuy nommé ñu jël seen cabinet yëpp def fa seen famille <laughs> mais c'est ça qui devient dangereux kon yéen ministères yi ay entreprise familiale lañ on a transformé nos ministères en entreprise familiale te loolu nag ku ko bëgg dafay fekk mu doon sa ndono mais munoo ñëw fekk lu askan bi yëpp bokk nga def ko entreprise familiale yaay doom wala rakk wala nijaay mais c'est pas comme ça quand même parce que tam Sénégal fii ñi fi nekk bëgg liggéey mais du ñu jeex ñooñu nekkuñ ci ay parti mais ay doomu réew mi lañ donc li nga mën même bu dee mën nga koo def parce que am nga sañ-sañ bi sa xel moo la ko war a tere sa raison moo war a bañ nga jël ñu la jege lool nga ne ñoom ngay jël di leen di nommer ci sa ministère wala di leen di dénk ay direction léegi nag moom loolu dañ ko war a dindi du question dañu bëgg a personnaliser wala dara parce que les personnes et les profils ne nous intéressent pas li ñu xam ci jegeyantoo yi ci am ñu loolool ñu intéressé ci loolu la ñuy wax te loolu la ñuy décrire parce que mënuñ ko bañal régime bi fi jóge di ka nangu régime bi fi nekk parce que dañoo nekk ci mouvance changement parce que lii du changement lii du rupture la vérité quand même mm-hmm. te lii sax reniement tuuti na si ñu wooyee ko ko lii lan lay niru lan lay niru devant le peuple comment on ose di nommer des membres d'une même famille dans des ministères ñu bëri fa comme ça mais loolu nan lañ ko mënee def askan wi bokkul si li ñu diggee woon non seulement mais aussi président Macky Sall benn ministre am ñemewuloon lii fii amoon na une dame bu ko defoon Seynabou kii jëloon directeur am euh, jëkkëram def ko directeur de cabinet mais loolu tole la fi juróon la dame de Tivaouane la mhm. à part elle kan moo sañoon di defaat loolu ci magistère président Macky Sall donc lii ñuy def nii ci ministère yi ak ni ñu koy déggee di nommer ñu jege ci ay direction loolu amu fi woon donc si pire loolu nag duñ ko mën a accepter duñ ci xaar dara il faut que les gens rectifient cela du question nag entêté wu wala dañuy bañ pression parce que dama gis ñu bëri ñu jege ci régime dañ naan ñun du ñu sedde ci pression du question sedde ci pression mhm. da ngeen a yor lu ñëpp bokk ku nekk am nga ci xalaat te man gëm naa ne suñ defoon référendum dem ci sénégalais ñëpp dañ naan lii na fi dañ parce que dafa rafetul ci république dafa rafetul ci état de droit te ci foofu la ñu toll Sénégal ak niveau de démocratie bi fi mu nekk bu ñu demee ba ay ministère ak direction parce que y a des directions yoo xamante ne ñu bokk ñu jege yow kii directeur bi kii directeur bii mais loolu mooy lan kon Sénégal c'est un boo xamante ne ñi ko gagné ñoo koy tiim ku nekk ñu jox la ci sa wàll mais ñi bokkutoon ci xeex boobu yéen vous allez rester dans la périphérie di seetaan pour man nag lii dañ ko war a rectifier du lu ñuy war a sax bàyyi muy muy jàll wala ñu koy négocier parce que c'est pas acceptable dans un pays où dañu ne woon il faut eh, eh, dañuy prôner l'homme qu'il faut à la place qu'il faut mais l'homme qu'il faut à la place qu'il faut dañ ci tegaat tamit ay valeur valeur mooy nit nit ki duñ la jox lépp rek nga jël lépp bu ñu la joxee aussi da ngay jël li bàyyi ñi ci des li ci des te loolu la ñuy xaar si ñi nga xam ne ñoo ñuy jiite c'est un régime boo xam ne du ma ne duñ leen may dara de mais nag dinañu regardant ci lu bëri ndax ñoom aussi ba ñu fi taxawee dañu indi woon beneen modelle de politique indi woon un langage de vérité. Mhm. le leader du PASTEF moo doon wax ne moom langage de vérité moom nee na gëmul secret d'État affaire d'État. gis ngeen coowal liste yi bi ñu fi amee ci législative yi lépp la expliquer askan wi ba ma wooyee Xalifa mu ne ma nii yéen a yéen a ngi koy fekkee parce que moom leen na il comme il est aussi yu mel nii suñ ko gisee si régime moom dañuy ne il faut arrêter te loolu am naa yaakaar ne dañ koy rectifier moom ak la président de la république parce que ison ont le devoir quand même de rectifier ça lii du tiir yoo xam ne dañ koy bàyyi muy muy muy muy continuer parce que nommé ministre bàyyi ko tamit ci sagoom mu def ko entreprise familiale ku ko neex mu indi loolu aussi bokkul si njiit te njiit yow lañ jox yow la ñu dénk xam les sénégalais ont élu euh, on on oui ont élu Bassirou mhm. donc moom la ñu dénk mais moom aussi képp ku muy dénk du te mu am euh, bët ak saytu ci li mu la dénk ak mhm. nan nga ko yore ak noo koy seddalee mais dénk la rek bàyyi la nga yor sa cëggal guy lu la neex def non c'est pas comme ça quand même le leadership ne se construit pas comme ça être leader jiitu mais aussi dangay saytu lu bëri ndax lépp nag ci bilan am lay bokk au au soir